عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا jàngeen jëf ci teewlu bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci xabaar yu soxal waajtaayu Katmiya moomu ba mu amee ñeent fukki at ak juróom-benn nekkoon benn bis ci xalwa toog gis sang bu sell bi di Seydina ma sallallahu alayhi wa sallam ci anam boo xam ne daanaka anamu mag la. wax ko kàddu yi na ko gannaaw ci tey man maay sa sang man maay sa sëriñ man maay ku lay aar léegi nag kon bépp yoon boo xam ne jëloon nga ko bàyyi ko bis ni ki tey Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wala seddina Cheikh léegi doon na ki nga xam ne moo doon aqiqatan sang bu sell bi di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu dénk ko lu gën mag mu jiite tarixa tijaaniya waaye tamit ahmadiya muhammadiya ibrahimiya dajale bépp yoon boo xam ne sang yu mag yi jëloon nañ ko ci noonu nag sang bu sell bi di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jox ko ab wérd tegal ko ci condition yi bokk na ci desal ci tarixa bi bu ko bàyyi mukk waaye tamit mën nga di am yeneen relation ak yeneen góor yàlla yi te bu ci am benn kañaan Cheikh Ahmed Tidiane nangu kàddu yooyu di ko doxe di ko jëfee ba yàlla yëkkati ko ci maxaama bi ñuy wax alxutbaaniyatu yàlla tamit defal ko ci sàkku xam-xam googu nga xam ne mu ngi ko doon wut may bokk na ci tolluwaay bi ñuy wax alxatmiya waaye tamit kadmiya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif léegi mooy sëriñu bépp sëriñ boo xam ne bëgg nga jël yoon bi nga xam ne Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tracé na ko. benn ci maqaama yooyee di katmiya góor yàlla yu bari di ko màggal mu jaral leen lu ne mu xadamu Cerno ya nekkee ca Koungheul ak ca Mbour ne ñoom it ña nga cay béy seen ak waar ak taxawaay bu mucc ay ayib kenn ku nekk ca wàllu wa nga féete ak ca gox ba nga faree ndax it xam nañu li ñu am mooy lan boole kook di ko sante Cerno kenn ca ñoom la ñuy teewlu ci micro Cheikh Tidiane Sarr. ñu ngi koy waajal ñun fii ci Koungheul Koungheul département la ba nekk ci allahu taala ñu ngi koy baaxee jullit ñëpp ne itam képp koo mën a teew daal teew fa am na solo ndax defaru rek la ci saayir ak ci kon ñun ngi koy waajal bu baax fii sax danañ fay def ay émission ci benn fii ci dëkk bi man ci ñu koy taxawee laa di bokk di laase appel nga xam ne su suboo département bi yëpp gën cee jot kon guddi googu wàllu saas ñu ngi koy waajal bu baax di leen ci ndokkeel te xam ne guddi gi daal guddi la koo xam ne lu fa waay ñëwee rek incha allah yàlla dana ko teg ci say loxo ànd ak nag ñu sam dem bu baax nga xam ne tey li moo ko waral loolu nga xam ne nag Mawlaay Cheikh Alassane Dème radiyallahu anhu moo ko feeñal ci ñun moo ko doon dundal itam dégg nga tey boolem taalibe yi fu ñu nekk ci kaw suuf ci biir Sénégal itam rawatina ñu ngi waaj pour ñëw Medina Baye dégg nga ñu ngi waaj pour ñëw ci buntu seen sëriñ dégg nga seen buntu ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mooy Mawlaay Cheikh Alassane Dème ngir ñëw màggal si ko foofu noonu kon loolu ñun waa Mbour duñ ci tardé dégg nga ci njiitalu man demb si dégg nga te maa ngi woo mboolem taalibe Baye fu ñu mën a nekk rek dégg nga ñuy ñëw bokk ci màggal màggal lay la 4 mai bi nga xamante ne ñu ngi koy defee Medina Baye ci buntu kër Mawla Cheikh San Dem dégg nga radiyallahu anhu ñu ngi koy eh, ñaan yàlla si jàmm dem njukkal ko ci ngëneel gi mu leen bàyyee di kar nañu fa mu tegoon guddi gi la mu ko jaxaloon ba tax na ñu ne duñu teggi seenu tànk ak Cheikh Ousmane Ndaw di muxaddamu cheikhno ci Sangil mi ngi ci téléphone ak Cheikh Tidiane sar ki kenn la ci ay taalubeem dëkk dëkk bu ñuy wax Sangil Sangil mu ngi fi ci yoonu Ndofaan leelatu kamiya nak mën na wax ne dafa réeroon mu ngi melni dërëm bu réer wala ñaar dërëm bu réer wala dal xaaliss bu réer te ñun ñëpp xam nañ ne xaaliss lu am njëriñ la bi mu réeree ci tawfiqiyatu yalla ak ngeenelam Mawlaaye wa Seydi Ceerno Asan Dem moy ki nga xam ne moo feeñal loola réeroon te nga xam ne ngeena lu reey la katmiya nit ñi jàngoon nañ ko ci téré yi di rombu xamoon nañ ngeen lëm waaye nag jël sa alal diko dépenser jël sa xam-xam diko dépenser dajale sa njabor gi nga xamne ya leen jur ak sa njabotu maanaa yi taruba yi dajale soppe yi dajale tidiane yi di leen waxtaanal ci makama yu ko yoy lool mom Cerno Asan Dem moy ki nga xamne ne ñeeka def kon ki kenn la ci ñi nga xamne ne Cerno ñoko nampal Cerno ci Cerno la jëlee tariikh tidiane waaye ci Cerno la tarbiye Cerno jox ko lijaas tamit muy seen mbokk Ousmane Ndaw Sangil wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu del siwaat fii ci kaw Kaolack dem ca lew nañu seen ak daayira ahlul mahabati wal xurba daayira boobee nag moo du aas bi tey fekkee na cosaan la ne daayira bu jara jàppale la waaye tamit nag bu jara fonk la ndax am nañu lu ñu am lu uteeg daayira yu bari dikkaat na ca solos daayira boobee ak taxawaay bi ci njaboot ak Cheikh Ibrahim bi am ñu lu ay kàddoom. di wax rek ne ñun si ñi sos ci lañ bokk ci liñ sosoon muy daayira ahlul mahabba wal xurba ndax ñu ngi ko créé woon en 1989 ci la daayira bi judd judd na lu yàgg nag amul tur ndax boobu ñu ngi nekk ak suñu sëriñ Cheikh Abdoulaye Cheikh Ibrahim moo fi nekkoon xalifa bi ñuy dem ci moom di wuti tur saa su ne muy seet dëggug sëriñ bi ak ñim ànd ak pour mu mën a joxe tur turu ahlul mahabba wal xurba amuñ ko rek ne tey la daayira bi juddu ñu sukk ci ron kenn ci taalibe yi wala ci doomi Cheikh Ibrahima rek am ko topp nañ ci weer yoo xam ne sëriñ bi dina ànd ak sam papa alhaaji bi tey ak njaboot gi yëpp ñu dem uti léeg-léeg mu ne dem leen ba nangam fekk leen ma tay ba fekk leen ma nangam boobu mi ngi seet dëgguk sëriñ bi ak mbir yi lum ñu jaral biñ ko créé en 1989 idée bi dafa ñëw ne dañoo toog ci kër baay di waxtaan ba mu yàgg dugg ci zikarantu bañ ne waaw ñun tey ñoo créer daayra ut daayra def ko kër baay bu ñu dajee ñun ñëpp ay ndaw lañ dinañ soxla ay mag yoo xam ne ñoo ñuy teg ci yoon wuñ mën a jaar seeti ku mel ni Baye Modou xam ne moom mu jigi coiffé lépp doon sëriñ bi doon cheikh mu rabbi bi doon léppi daayira bi ba pare yeggal ko foo xam ne eh, kawe na njort ñëpp ànd ak ci suñu baay Baye Alaaji bi tey mooy magu taalibe yi mais man damay jàpp ne liñ tuddee tey ñu ne soldaaru Baye Modou yi ñuy xale yi moom moo jiitu ci soldaar yi ndax eh, da koy faral di nettali saa su ne mu ne Alaaji Abdoulaye da ko boole ak Baye Modou na ko yaa ko mag ci ay at dee ko dimbale lam ko tontu daf ne ko ah sëriñ bi man de Zahir si rek laa mën a jàpp baatin bi yow yaa koy jàpp xam nga ku reetaanlu la mu ne Zahir si nag mooy ku ko saaga ma saaga ko ku xàcc di ko dóor ma dóor ko loolu dinaa ko mën a téye wante baatin bi yow sëriñ bi Alaaji Abdoulaye yaa koy téye moo tax daayira bu jara fonk la daayira bu jara dimbale la daayira bu jara fonk la daayira bu jara dimbale la moom Modou Ass bi tey dikkaat na ci mag ñi daan sonne daayira bi ba mu yegg si fi mu yegg si tey jii ànd ak di wax ne bu waxtu wi yeggsee dañu leen cay fàttaliku ànd ak di leen di ñaanal Modou bi ci mbooloo mu fa nekkoon am na kuñ ci doon wax Baye Cissé moom nigérien la Hausa la doon jàng si nekkoon ci ku ñuy wax Malom Bello Malom Bello mooy yoroon zaawiya bi comme Malom Adama mi ngeen xamoon Malom Bello moo ko fi jiitu Baye Cissé moomu ci waxtaan woowu fa la ko fekkoon man maa nga ci woon Baye Dabbo ma nga ca woon ak Pape baay mi ñuy wax Serigne Baye muy Baye tuuti sëñ Omar Maam Alaaji moom it ci daayira boobu ci si ñi si jiitu ci la bokk Cheikh Abdou ku Baye moodu la mooy mag yi Serigne baay yàlla def moom it mu teel a génne àdduna mais ci ñu sos daayira bi moom it ci la bokk Papa Sukay mi ngeen xam moom it ci la bokk ci suñ mag yi ci la bokkoon ba léegi ñooñu ma la tudd ñu nefi amul kenn ku ci génnee loxoom ba léegi ñi ngi ci ci daayira bi lañ bokk di teew Papa Cheikh nga xam ne tey mooy xalifa Maam Cheikh Tidiane di doxal li doon Baye Modou di doxal moom tamit ci ñu ko sos ci la bokk ci suñ njëkk tey yàlla teg ko ci kanam njaboot Baye Jaleñ Baye Niass moom it occupé na fi ay poste doon fi secrétaire général Malick Dabbo Alsan Mar koo xam ne jolof-jolof la woon mais daf fi ñëwoon kon mbokk yi foofee lañu ñu ndax képpee xabaar yi soxal waajaayu Kadmiya dig leen dajee ëllëg ak jàmm bu soobee sunu boroom anna wa ala taatika wa shukrika a'inna